علشان شريف شريف شيخ عبد الرحيم ولد شيخنا شيخ محمد الفاضل fii fu ñu nekk nii ñu ngi ci diwaanu Kawsara Kawsara nag buñ ko sampee ak léegi mot na fukki at incha allah lu tax ñu samp Kawsara ngir dimbale doomu Sénégal yi waaye doomu réew ak sous-région yépp li ñu façon yéene fii ci Kawsara mooy jàng ak jàngale jàng xale yi ci seen diine jàngal leen ci seen aada

di tànn ci siiñ bu ñëwee signe mooy ñëw bu ñëwee ñu oote ñépp ñi nga xam ne ay kilifa diine la kilifa aada euh, ñu ngi jiital yépp ñi nga xam ne ay imam la fii ci Pakaaw ak sous région yépp di ñaan waaye tamit di jàng alxuraan dëmb lañ ko commencé woon parce que changement bu fi am ren mooy dëmb ci guddi dañ ko màggal

incha allahu rabbi dafa am ñoo xam ne ñun shérif yi luy suñu mission ak suñu devoir mooy yóbbu doomu aadama yi ci leeraay génneel leen ci lëndam yóbbu leen ci siraatul mustaqim loolu la suñu maam bi doon def muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa héritage boobu la ñuy continuer ba tey eh, te nag man mii ma ngay wax ni amna suñu kilifa bo xamne bu ñuy wax xalif général bo xamne ñu ngi koy wax cheikh sidati wuldu cheikh abdou wuldu cheikh na cheikh mahfouz ci daar salaami mahmouda daarul xayr dafa yebal rakam bu ñuy wax shamshidin wuldu cheikh abda mu am délégation ñi nga xamne ànd nañ ci muy suñu porte parole général bu ci kanamé tuti da ngeen koy dégg parce que mom moy gëna yaatal ci waxtaan bi ñu koy wax cheikh bun wuldu shamshidin wuldu cheikh mahfouz di tamit am na ci délégation ñu ngi wax Cheikh Babouye wuldu Chamsidine ak Cheikh Sidati wuldu Cheikh Mahfouz wuldu Cheikh na wuldu Cheikh Mahfouz ak suñu délégation bi mu ngi tamit suñu ñëpp ñi nga xam ne ñoom suñu mbokk la ñu nga wax Chérif Abdoul Jalil bu jógee ci Hamdaani ñëw fii nag ñu oote imaam yi ak ñi nga xam ni ay kilifa aada ak kilifa diine di ñaan di tànn suñu loxo bi tànn suñu loxo bi ñaan suñu borom ngir jàmm mun a ñëw ci Sénégal jàmm mun a ñëw ci réew mi et loolu la fas yéene at bu nekk li ñuy def ci njàng bi alxuraan ak yaasin ak salaatu ala nabi ren nag yàlla def ko tombeel ci at bi ak ci date boo xam ne date bu sell la ñu ngi gërëm ñëpp ay daara daayira yi am na ñoo xam ne jóge nañu ci bitim réew ak sous région ñu ngi leen di sant leen gërëm waaye di gërëm ñoo xam ne ay ay presse tamit ñi nga xam ne dañu déplacé wu ñëw ba fii képp ko xam Kawsara nga xam ne Kawsara jegewul ci tali bi waaye dañuy ñëw rek ngi mun a tas xibaar bi pour ñëpp mun ci njëriñoo ñëpp mun ci jël loo xam ne wala for loo xam ne dina ci jëriñoo wala mun a defar loo xam ne dina defar njabooti Sénégal nag lu ñu mun ak lu ñu war mooy nañu ñaan ngir jàmm mun a ñëw Sénégal te maa ngi wax saa yu munta doon doomu aadama yàlla moo lay may maxaama moo lay jox place boo demee ba nga xam ne place bi yàlla wàccal na la nanga ko nangu parce boo ko nangu rek da ngay dem ak bàkku da ngay dem ak seytaan yal nañ yàlla musal loolu Sénégal nag ak sous région yëpp nga xam ne kër boo am problème nga xam ne sa kër parce que ñun yëpp benn baay la benn ndey la amuñu benn différence te lépp li nga xam ne ñu koy dëgg ci yëngal-yëngal yep ñun suñu devoir moy ñaar ngir yalla seddal waaw lu tang yalla yalla soti ndox bi pour affaire bi mëna gëna gën sedd loolu moy suñu objectif bi nak fi Kawsara nak lépp lu xam ne li nga xam ñewon nañu daaw ak daawaat géej fi ñoom ñoo encore mobilisé waat parce que dañu né li fi ñaani won alhamdullilah yalla def ko nangu té yalla moy nangu ñaan bi lool moo tax ren alhamdulilah comme ni ngeen koy constaté ni et alhamdulilah am na ñu bëri yoo xam ne jóge nañu fu nekk di ñëw di màggal bés bi ñu ngi sant suñu mais ñu ngi julli ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi gërëm tamit ñëpp ñi nga xam ne présenté nañu fi et ay sécurité yi tamit ñu ngi fii depuis dëmb waaw ñu ngi gërëm tamit nguur bi waaye xam naa ci wàllu nguur bi suñu porte parole général moom dina fa ñëw gën leen ko yaatal incha allahu rabbi mbokk yi loolu mooy suñu kaddu boo leen ñu